Euh, daanaka mënuñoo euh, convaincre ñi nga xam ne di population bi léegi mu ne la ko yéen a kaay gi xëy fësale mhm. yéen a kaay gi jël ku ci mel ni Abdou Mbaye ku ci mel ni Mamadou Lamine Diallo Amsatou Sow Sidibé Abdou Khadr Abdourahmane Diouf ba ci nga xamante ne Alassane Sall mhm. ay candidat dañu yoo xam ne wax dëgg yàlla ci seen wàllu parcours jaar na yoon mhm. waaye dañ gis ne askan wi jox leen bopp man moo ko waral nag loolu la yéen kaay gi war fu tëj xëy ji daal di yéenekaay gii di critique dafa xëy amoon ab taxaw seetlu jëmale ko ci Amadou Ba. mu ñu ne neexul ba neexul donte fekkente ne président Macky Sall jox na ko bopp samp ko nekk mooy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar waaye Amadou Ba xorom si dafa des. Mhm. Euh, yéenekaay yi bu ma xëy fesal lu ni mel. kàddu yi boobu yëkkati daanaka du du xas ba jàpp te aussi bëri na ay engagement yoo xam ne jëloon na ko ci jamono ju mu nekkee euh, euh, naa daan élection bëgg naa dégg bi wu ci élection présidentielle yi di yoo xam ne daanaka moom mooy topp kii di Amadou Ba yéen gi moo xëy dellu siwaat ci loolu yi leneen le quotidien xëyee na ko. Amadou Ba ma nga nekkoon démb fële ca Diamniadio ngir teew fa benn ndaje moo xam ne moom lañ fa doon amal jagleel ko wàllu miin. Mhm. Euh, teewaloon fa président Macky Sall ndaje moo doon occasion ci pom président Abdoul ah, Amadou Ba mu yëg ay kàddoom daal di ñaawlu taxawaay leen ci entreprise yoo xam ne nekk fële ci douane Kédougou di yóbbu seen alal da ca fekk ne askan du koy du si gis seen bopp moom Amadou Ba noonu loolu dafay dakk noonu la ko yéen a kaay gii di le quotidien xëy fi. yéen a kaay bi di 24 heures. waaw yéen a kaay gii di 24 heures ne Amadou Ba la mu bëgg mooy yemale maanaam entreprise yooyu li nga xam ne dañu fay jële ay milliards di yóbbu seen réew milliards yooyu la askan wa dëkkee fële ci diwaanu Kédougou mën cee teg na ne du ñu nangu mukk nag ñoom entreprise yi nga fi ne di yóbbu alal ju bari seen di réew eh, te askan wa dëkk fële ci diwaanu a dakk moom Amadou Ba noonu la ko yéenekaay gii di l'info xëy Fassel. yéenekaay bi di ñu fàttali ko ay fan yu fan yu ñu ay kàddu daal jox ab baaraamatu moom nguur gi ne koy dugg bu nekk tey ci ay jafe-jafe kenn te ko kurul nguur Sénégal ndax euh, dañ leen a seetaan ak entreprise ya fa ne di gas urus ba euh, daanaka daal ñuy dund ci seen kaw waaye loolu yi kàddu yi nga xam ne premier ministre Amadou Ba yëkkati na ko démb dafa dëggal li am euh, li Bougane Gueye Dany waxoon doon ñu la ko yéen a kaay gii di la Evidence xëy fës. yéen a kaay bi di la mandat. yéen a kaay gii di la mandat ne gestion des ressources minières au Sénégal Amadou Ba wane ne gouvernement bu Sénégal da cee lajj. loolu nag di dëgg rek discours bi nga xam ne président Bougane Gueye Dany wax na ko keroog ba mu demee fële ci Xosonto. ngoog turbine. Tribune yéenekaay ne Amadou Ba dëggal na tuuma yi nga xam ne nii Bougane Gueye Dany yëkkati woon na ko daal di koy teg ci nduddu Sénégal euh, Mamadou Lamine Diallo yëkkati ay kàddoom daal di xam ne jamono ji Sénégal amatuñu gouvernement président Macky Sall jamono ji mooy directeur de campagne bu bu bu bu Amadou Ba ak mm-hmm. premier ministre jamono na lu may euh, xool naka lay toogaatee ci toog ci toogee la ko yéenekaay gi xëy fi di 24 euh, Quotidien xëyee dellu ci ko bi teeg l'école de yéen kaay gi ne ëllëg alxames ji lay doon nañ jàpp ne toll si ñeenti millions ak ñaari téeméeri élèves yoo xam ne ëllëg la ñu fas uti léegi ci école yi lée mu nekk nag loo xam ne mu ngi am ci jamono ji nga xam ne askan wi ñu ngi euh, euh, bëri na ci école yoo xam ne ñu ngi ci biir ndox mi Euh, ba tax ñi jàpp ne slogan ubbi tey jàng tey du mën a ne noonu la ko yéen kaay gi suuf ko tëjee xëy yéen kaay bi di Dakar Times yéen kaay gi Dakar Times ne Ibrahima ko yemalu kat lépp loo xam ne alal la woon te askanu Burkina Faso encore dana dana ko tayle noonu la ko yéen kaay gi ndax euh, miin bu manganèse ab société bu Russie proposé woon na ci lu ci toll ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom milliards ci suñuy koppar waaye moom fa la ne ko bàyyi fa la ko bàyyi. Mhm. Euh, jël mine boobu daal di koy tayle daal ab beneen entreprise noonu la ko yéen a kaay gi Dakar Times xëy fës. yéen a di la soleil la. yéen a kaay gi di la soleil xëy équipe nationale bu Sénégal bi ne jamono ji gañetul ñeent fukki weer ak juróom-ñeent ngi nii daanaka ñoo nekkoon ci bopp Afrique. Mhm. waaye tey ji loolu wane la lan moo ko waral lan moo tax équipe nationale bu Sénégal tàmbali deltu ginnaaw. yéen kaay gi di la soleil ci loolu la xëy tey daal si am ab taxaw seetlu yéen kaay bi di stade ligue des champions deuxième journée tey ji si àllarba ji lañ koy amal Paris saint di laale aw ni ak Newcastle di dem fële ca Porto Leipzig de la équipe bii di Manchester United euh, Manchester City. nangoog euh, suñu lamb. Modou Lô mhm. daal nee bu julle daal mu ngi ñaan Ama Baldé daan Modou Lô jël bu amul benn werante.